comme TV5 France 24 les radios RFI Journal Le Monde Jeune Afrique c'est des organes de presse représentés à Dakar qui même souvent rendent compte des combats de lutte de Balla Gaye de Bomba Dieng et de Yékini ces journalistes très inspirés n'ont-ils pas le droit en professionnel de saisir l'occasion de l'anniversaire de la plainte accusant Ousmane Sonko pour obtenir une grande interview. Je vous dis qu'il y a eu des télévisions de renom au Sénégal que j'ai invité à l'occasion de la première sortie de Sarr les gens de Tambacounda de Saint-Louis de Fongolimi de Dakar de Sédhiou de Genève de Chicago de Milan de Brescia disaient Adji Sarr mooy kan moo war a mel lu tax góor war a tàggoog sagoom xanaa xale bi war na jekk de xanaa ñun de bëgg nañ koo xam cette dame-là doit pour qu'on en puisse comporter comme un animal les gens se posaient des questions c'est des questions que les gens se sont posées donc tout le monde voulait voir Adji Sarr on l'amène chez moi un jour pour qu'elle s'exprime enfin. Et immédiatement après, il est retourné chez sa tante. Je dis que je, vous le jure sur le Coran. Je n'ai pas dénoncé ici, mais des organes de presse de premier plan dans ces pays-là n'ont pas osé diffuser l'élément am na fii télé yu mag yu ñëw sama kër barke alxuraan te ñi ma jëloon ci télé bëriwuñu ba sama kër ma ne yëpp xaju fa am na ñu ñemewul ba tey jii di teg daa ji wax ba tey ñu ko denc ñemewuñ ko génne ba tey ba tey télé Sénégal yi ñemewul génne aji waaye bu ko waa faral génne nag lu ciy wax ndax booba saaga yi betti na ku ku tudd Adji Sarr lu génn nu wax ñu saaga la man cinq cent soixante onze saaga ci benn bis barke alxuraan billaahi wallaahi taala ëpp na la cinq cent soixante am na yoo xam ne dama leen coupé yéen jëluma leen télé yu bëri rajo yu bëri ñemuñu wax lu neex Adji Sarr ci booba am na émission yoo xam ni xam ngeen li ma leen di wax du ma tudd kenn am na yoo seen biir télévision dañu amoon émission matinale boo xam ne ñaar ñooñu buñ buñ commencé le matin ci aji saala nekk bu ñuy bu ñuy fanaan ci aji saala yu fanaan ñii ay site internet la ñoo xam ni ci aji saala ñuy yenn am na doom mas na am jëkkër fenkat kàcceer aji saala mosul sëy mosul am doom du du ma benn tur mais danaa tudd benn tur quand kenn laa tudd si ñëpp muy Papa Ndiaye la Papa Ndiaye Babacar Touré moom fen na ba dem du ma ay xam mais mais mais mais Papa Ndiaye du ku ñàkk jom a ngi noonu di fen di escroquer ba dem prison génn di fen di saaga ba si dara yi jom nit day am jom góor day am jom Papa moo taxaw wax Papa du góor de mu ne parce que góor du fen mu ne Adji Sarr ci interview bi mu def ak tubaab bi nee na dañ koo violé woon avant Ousmane Sonko dégg ngeen loolu de xanaa Papa Ndiaye ko de Papa Ndiaye ko ferati na Papa ñëwati na Papa ñëwati na Papa yaa mën a kàcc Papa Ndiaye bàyyi fen Papa booy noyyi di fen booy lekk di fen booy ngelaw di fen yéen ñi fi ñu nekk yéen ñëpp je vous Papa Ndiaye moom kenn rek moo bët. wala noo nopp pour gis loolu viol boobu Adji Sarr dañ ko violé avant Sonko Papa Ndiaye Papa Ndiaye respecté intelligence na ma benn Sénégalais wax Papa Ndiaye gis na fu Adji Sarr waxee ni j'ai été avant Sonko c'est-à-dire day fen xale boobu di fen ba dugg prison di fen di fen ba dem ba yàgg xam nga léegi liggéeyam mooy fen profession fenkat donc da ngay fen di fen ba yàgg da ngay foog di fen bi dëgg la ndax l'habitude est une seconde nature day dem ba fen bi day nekk dëgg ci moom muy fen rek buy lekk di fen buy noyyi di fen buy weex di fen ba foog di Sénégal yi bu fenee ñu nangu fen wi mu ne Adji Sarr a dit dans une interview qu'elle a été violée avant d'être violée par Ousmane Sonko mais donc je vous lance le défi Est-ce que, est-ce que moi je raconte des histoires ou pas Malheureusement, il y a des gens qui ne sont pas informés, suivent pas Mais Pape Ndiaye l'a dit. am ko fi dégg de am na ñu ko fi dégg fii wala naan ñu confirmé c'est vrai barke